pratiquement tout le monde. Quoi. Il y avait toute la crème de la culture hip-hop. Donc déjà, ils ont proposé un album qui s'appelle un pré-album. Donc ñu ngi c'est un album c'est un pré-album bi ñu ngi Still Here Rex maa yeah béykat ñoo Déjà internet yu les suivre that's what's up Alien, in the place to be. ok voilà justement je parlais tout à l'heure mais ngi il proposait a euh, pré-album tout de Still Here. Mm-hmm. donc pourquoi le choix de proposer un pré-album. Ben, choix proposé préalable, c'est que on est resté jusqu'à 2010, 2010 bataille pendant 5 ans Guinée dara ci maquette bi. En plus euh, que instant pendant tout ce temps durant 5 ans yooyu dañ nekkoon ci liggéey bu metti liggéey boo xam ni moo waraloon Aliens dafa màgg musicalement màgg lyricalement ba pare màgg ci côté bu nekk comprendre nga. par la suite ans ay son yoo xam ni dafa. dépassé par rapport ak style bi ñu xamee woon Alien Zik si beneen planète bi. mu nekk dañoo dugg si beneen univers beneen monde boo xam ni dañ gën a calé si lu ñu bëggoon def. Mhm. lyrics yi gën a toog surtout musicalité bi gën si nekk. Mhm. léegi nag ñu gis ni peut bu ñu jógee si 2010 gars yi jot a déglu album Alien Zik si loolu après ñëw dégluwaat ñu si talent yu bees yu ñu yor ak style yu bees yu ñu créé dañuy gis ni day nekk benn break si public bi. Mhm. léegi pour bañ a seen conscience ak xam nga musicalité ñu tàmmaloon. ñu ne pourquoi par ñu def benn pont benn bridge entre beneen planète ak liy waaj a génn c'est-à-dire def si style yu bees yi nga xam ni gars yi xamuñu ko woon nekkoon si beneen planète bi ñu xaw si jël tuuti ak yeneen style yi nga xam ne xamee woon nañ ko Aliens yi ñu boole ko concocté ko def ko muy benn pré album. pré album comme son leen l'indique benn pré loo xam ne day nekk avant goût luy waaj a ñëw aperçu si luy waaj a ñëw loolu moo doon concept bi tax ñu dajale benn seize seize titres. Euh, def ko tuddee ko Still Here mu nekk benn pré album boo xam ni mun nañu wax ni sax ñëpp dañ naa ni lii album la du pré album parce que am na niveau bi am na xam mix bi am na qualité bi ba pare am na job bi si biir quoi moo a loolu justement donc Still Here ngeen ko tuddee Still Here mooy. man toujours je suis mhm. mooy on est toujours là. la moo tax on est parce que on est resté cinq ans sans génn. 2010 nañ ko dara still here par rapport ak li ñu still here par rapport ak Aliens toujours di def différence still here par rapport ak di jéem yóbbu suñu hip hop quoi. ok pré-album aussi c'est rare de nos jours. Ah, c'est mona, c'est une première au Galsen. Max, maxi la ñuy mixtape etc., mais pré-album. C'est une première au Galsen par rapport à. day rejoindre suñu concept Alien nous ñun toujours lu newul différence le nekkul une nouveauté si le ñuy def. dañ jàpp ni baaxul. le tax ñu ñëwaat lii te Still Here bi album ku koy jënd di qui si Benen. surprise si biir leneen lu bees loo xam ni si hip hop mondial mu si si am ku ko jënd CD bi nga gis loolu noonu ko ok les thèmes vite fait thèmes yi ngeen yi ngeen xamante ni proposé ngeen ko ci pré album bi les les thématiques. bon yi bëri na. Mhm. def nañ son boo xam ni son bi ngi tudd enfance di wax si xale yi. pour gars wan leen ni que xale yi ñooy nekk lendemain. de bi ne leen gars yi yar dépendance pour wax ni Afrique toujours on est dépendant des Européens mhm. dépendant de waa Babylone parce que suñu nguur yeeg suñu décision comprendre pour wax ni war na fi deñ def son way of life de wax si suñu namel char suñu nga xam ni nañ gis def son bu système seen système système mondial des day dem ak suñu culture nek lo xam day dem ak suñu politique ku dëkk di dénoncer loolu pour wax suñu gouvernement ñu Bob jël sen bop en main jël sen bop en charge de a gérer dëkk bi ndax affaire du Ben, développer nañ ci lu bari dal d'accord justement donc euh, dépendance ñu ngi koy yéen ko def ak yeah donc son boobu noonu déjà en tout cas Afrique yag nañ ci wax loolu non ci Afrique ci Afrique ci Afrique. Mhm. ban touche bu particulier ngeen indi ci ci son boobu. non touche boobu soo mun naa wax mun nañ waxaat comme ni ma koy wax chaque jour c'est encore une première mhm. parce que jël nañ ay samples yoo xam ne ay samples africain nañ mhm. Dixa tëgg ko tëgg bu nice boo xam tëgg bu hip hop ba pare ñuy invité si Ombre Zion kenn du ko présenté tu il fait partie des gars yu gën a talentueux si Sénégal comprendre mu def si benn woy boo xam ni soné na way mu ko wax folklore c'est-à-dire style ay mal, ou wala gars def ay yela du genre man mo ñëw way ci ay way yoo xam day sonné pop day sonné genre rock Lool rek fusion la pour wané ni nan nga mën a ben instrument bo xamni africain le folk après nga way ci ay way style yo xamni rock lay joxé. nga wo kenen tamit mu way ci way yo xam lool la waron laaj ñu bolé lool ba paré gars yi rap ci kawam mhm. parce que dañ gars ils ont tendance bu ñu def ay toujours loolu koy dénoncer bu ñu def ay sound thème ils préfèrent wàcce def moins de flow moins de technique favoriser paroles yi alors que musique ñaar yëpp fond ak forme la bu si ne dafa war a dem du warul dem bàyyi moromam comprendre nga ñu def loolu Dixa réussir tëgg benn bit boobu déjà beat bi boo ko dégloo rek c'est lo xam tap da fay sonné gaay yi def ci lu cool mu na wax ni c'est une première tamit lolu job nañ ko nice dépendance ñëpp bokk na ci sound bi ëpp ñi nga xam ñoo wax mo leen gëna neex ci album bi kon lolu dama ci tënk ci gaay di leen ci béggee quoi ci liggéey boobu ok on est toujours avec Rexon du groupe Alien Zik de leen fàttali ni génne nañ ben pré album bu tudd Still Here qui veut dire on est toujours là mhm. Alien suñuy organiser événement la Alien fu dem ils font le plein mhm. n'est-ce pas donc euh, lan mooy secret alien par exemple. ci boobu secret bi c'est juste que ñun on se respecte. Hmm. ba pare respecte suñu public. ba pare respecte suñu job. képp pour des aliens Zik di nga ñu clashé lu mais doo wax ni ils font pas du bon rap quoi ils font pas du hip hop quoi. Mhm. ba pareil am nañ suñu public public boo xam chaque fois à ñu woote. te ñun une nañ si groupe yi nga xam ni suñu entrée day cher ay 5000 lay nekk ay 3000 3500 du genre. Mhm. mais public bi day déplacé en masse ñëw support la. parce que yow yaa ko woon lool. yow yaa ko ji lool. chaque fois à bouger ñëwee dañuy bëgg joxewu à 100 one len te chaque spectacle bu ñu def day différent ak le 29 décembre bi passé mon nekkoon jour sorti al pré album bi. def nañ plateau boo xam gars yi c'est le meilleur plateau si hip hop Galsen parce que def nañ ko mu ànd concept c'est rare ngay gis concert bu ànd concept. Mhm. ñëw nañ déjà scène bi rek il la indi fa DJ exposer tak ay dal ci kaw. du genre def ben décor ay pompe mhm. ba paré ñu ñëw sole solu solu old school. première partie exactement. Mhm. pour wané ni affaire bi back to the roots la. hip hop bu dëgg bi pure hip hop bi baxone bi départ ba hip hop bi dafa départ ah hip hop bi ay calcul ay affaire de commercial c'était lo juste naturel ñu wane loolu groupe la bien vrai que ñu ngi taxer de new school on était là depuis le début quoi mm-hmm. pour jox hip hop bi ñu solo, après wat quoi ok vous faites toujours le plan foo le munti dem muy euh, euh, Douta euh, Biscuiterie muy mm-hmm. au Grand Théâtre la ben, Alain Sékou Wembale sax nañu mën a wax ñun. non pour l'instant, instant damay au grand théâtre après ñu dem ci stade parce que déjà stade yi ñoo au grand théâtre. Mhm. mais Alien au grand théâtre. yooyu yëpp yooyu yëpp mi ngi suñu projet. comprendre nga ñun on veut toujours comme li ma lay wax chaque jour concert Douta Seck bi ñep ñu fa ñëwoon gis nañ ni y avait du bon matos dañuy bëgg lepp lu ñuy def bëgguñ ko def à demi mesure au moment volu venu du moins mm-hmm. dinañ ko tek ba paré wo si ñi nga xam ne nañ ko sekkal du genre c'est que moy li wax chaque jour damay bëggé wa hip hop parce que hip hop mi ngi job ay djégo yu reuy c'est-à-dire public bi ñi ngi commencé di ñëw légui lu may waxaat mooy artistes yi nañ gëna a suñu genre yi nañ gëna a gëna taxaw ba public bu déplacé woo mu ñëw baña a désespéré bañ a découragé si li fa fekk parce que tamit organiser neex na nit ñi ñëw en masse est-ce que li de fay joxe dina neex. comprendre nañu gëna a comme muy Alioune Zik comprendre nañu wax ni la balle dans notre camp job bi na gëna a ak tamit def nañ remarque également concert damay même pap ràññee nañ leen bu baax hip fi ba mais Alien bu organisé da ngay gis ñu ñëw y avait les Alaaji y avait Simon y avait Jojo euh, waa etc., Fou gars lan la job gars respecté mm-hmm. qu'est-ce qu'il y a lan la exact bah, wax ñaar parce que en dehors de job bi humainement gars yi problème comprendre nga ñun hip hop job comprendre la job la boo xam ni ñi nga xam ni bokk nga seeg ñoom gis-gis di ngeen di mën a job ak ñoom dem sekk jàmm ñi nga xam ni bokk ak ñoom gis-gis terewul da ngeen bëgg ak ñoom parce que life bi life la quoi hip hop bi day jeex dem feneen ñun ñu am suñu dund ñun gars yi humainement personnellement gars yi amul problème ak kenn ñu yooy sax quoi léegi nag show love boobu ñuy wane true love boobu ñuy wane si hip hop bi mhm. mosoo dégg aleen si classe na kii saaga na kii jot boobu sax les gens sont maintenant responsables am ay famille tal nañ yeneen comprendre léegi loolu nañ après ku gis loolu si ñun ñëw show up ñu loolu rek du leneen quoi. après album Still Here kañ la album bi di génn. bon album bi allah bëgg nañ mu génn si si yi mais nag public bi ñu jot a jënd pré album bi ñu ngi naan ñu du si dal ñu ngi naan ma gaañ doo leen fi génnewaat album léegi parce que li ngeen génnee nii raw na album may la temps ñu cons ko ñoo ngi waxtaan ak ñoom daal bu dee d'accord nag ñu génnee ko si vague yi. album bi su génnee mun nañ xaar Alien Zik euh, man Alien Zik Demba Diop laay wax mun nañ xaar Alien Zik. non déggoo ma ne la wémbale ne la gars yi la ñu gars yi di gis. incha allah <laughs> waaw jeex na léegi dañuy clôturer en beauté parce que Rex tamit leader d'opinion nga. Ah. donc mënuñu la bàyyi te duñu wax tuuti ci actualité dëkk bi jamono ji. bon dëkk bi jamono ji mooy comme. dëkk Ablaye Wade ngi yëngal fii ñu ngi wax procès Karim ngi fii jamono ji. ku comme ni ma lay wax ku déglu dama lay damay dellu gars ñu déglu wax leen ñu dem déglu ji sound le pire ba pare déglu sound système ku déglu loolu di nga am aperçu si dëkk bi lan la. Mhm. gars dañuy changer ay tête mais du ñu changer système. système mooy li nga xam ne mooy doxal ay dëkk. gouvernement boo gis daa am système. c'est-à-dire personnes yi dafa am ay nit ñooy dajaloo tracer benn système tëral ko ne dëkk bi nii lay doxee. yow loolu noonu. boudé yow dañ fa ñëw changer personne bi bu fa né jindi jalis tek rex rex di wóoyee système jalis kon rex mo fa nekk ba tay wala jalis mo fa nekk ba soxla wu ñuy changer tête yi dañ soxla ñuy changer sen façon de voir des choses mhm. façon bi ñuy gouverner dëkk bi façon bi ñuy tegee système yi mhm. système européen bi nga xam mom la démé demul ak dëkku Sénégal mhm. comprendre dañu am seen ay réalité Yo xamni ñom dañ ko banaliser alors que ñun fi mënuñ banaliser lool comprendre parce que dañu am suñu religion am suñu ay gëm-gëm ba paré am lo xamni mënoo ko def si Sénégal mu dem parce que nit ñi gëmuñu yooyu moi comme yenn loi yi ñuy jéem a imposer ay daganal góor jigéen ay daganal ay affaire du n'importe quoi loolu mënul dem ba àdduna tukki léegi nag foog ñun ñu jël suñu bopp en main c'est-à-dire peuple bi au début après mu mën yegg ci gouvernement parce que lu wax toujours c'est le peuple qui fait le gouvernement. Mhm. ñu nekk ci peuple bi ñu nekk ci population bi ñoom ñooy nekk nguur yi. Mhm. comprendre mhm. léegi ñooñu noonu à la base foog ñu tàggat seen xel ñu xam li nekk Europe newul fii. ba pare nañu bàyyi affaire de kuñ fi teg. Mhm. li may wax chaque jour na nga jël temps xool nu dëkk bi di doxee. mais bul jël temps di xool ki fa jógee lan la sàcc wala lan la def. loolu c'est peine perdue ba pare temps perdu. temps boobu boo ko consacré woon si teg ay projet affaire dina gën a dem. na gars yi changé système yi mais pas personne yi ñu koy changé kii toog keneen ku ñëwaat il fera la même chose. nañu xool fan la mal bi nekk ñu déemu dindi lool. waaw ce sont les messages de Rex Rex journée internationale de la femme bi mooy dernière question journée internationale de la femme mooy le 8 mars dimanche la déjà yow am nga sax et tout donc euh, euh, lan lance lancer message chaque jour journée internationale de la femme la. bien le message Voilà, merci à tout le monde. On était avec Rex du groupe Alien euh, donc Chikara fur des Stars. Déjà, ils ont proposé un concert pour les Doutes secs, C'était le 29 décembre passé. Et merci à tout le monde et on se retrouve très bientôt à Canen, Chikara des Stars.